salut les amis ziar naa leen bu baax a baax podcast Wolof Tech bi leen di jox lépp lu jëm ci informatique ak nouvelle technologie manam maanaam xarala yu bees wolof alors tey mercredi 16 juin 2021 Nous fas yéene def épisode 3 ci saison 6 p tey nak dañ leni proposer benn mini épisode manam benn épisode pour ndaw la ñu fas yéene discussion bi nga xamante amon nañ ko ak euh, Binta Ngom ak fodi Diop te ci épisode bële passé la won manam ci semaine bi ñu génn euh, donc temps bi nak dafa guddone trop motax ñu daggone parti boobu noonu fas yéene leen ko indil tay ji ni ci mercredi bi alors tey dinañu waxtaanal ñoom euh, ci liggéey bi nga xamante ñu ngi koy def maanaam ku ci mel ni Binta Jo bint ngoom mu ngi def ay euh, plateforme boo xamante ni day jënd di jaay ak euh, te moom day accepter li ñuy wax ay cryptomonnaie maanaam ay bitcoin ethereum ak yeneen cryptomonnaie yoo xamante ni am na ci marché bi donc moo nekk première plateforme wala première entreprise boo xamante ni day def commercité te di accepter ay bitcoin manam ay cryptomonnaies alors Fodé job aussi mom mu ngi def benn liggéey bu am solo euh, ci communauté bi manam day proposer ay application wala ay ay ay ay ay ay code yo xamanteni ni day permettre nit ñi ñu mun ko jëriñoo pour base ci lepp lo xamanteni ni bëgg nañ ko développer alors mom nak dinañ ci and ak mom dinañ ñu waxtaanal ci yenn application yi nga xamanteni ni mu ngi koy def alors tey nag li bees mooy dañuy indi beneen rubrique boo xamante ni euh, ay news la c'est-à-dire ay news yu bees yoo xamante ni dina am ci monde bi monde de la technologie ki ci ciy àndal nag mooy Zeyna Diop moom dinañu indi ay information ci lan moo xew actuellement ci nouveauté euh, en terme ci wàllu technologie wàllum xarala yu bees ci àdduna bi alors Zeyna Diop dina ci ànd ak ñun incha allah euh, moom nekkul nag sur place fii nii mais dinañ ko jot par WhatsApp incha allah alors ñu dem directement nag kon suñu épisode tey bi maanaam suñu mini épisode tey bi allez jaajëf alors Binta euh, yow yaay euh, ki nga xamante ni yaa jiite kuréel bi nga xamante ni euh, ñoo tudd Bleu comme la mer nekk benn start ngeen yëngatu ci lépp lu jënd jëm ci wàllum jënd ak jaay ay produits yu ci mel ni ay jën wala ay légumes ngeen koy jaay te di nangu recevoir di nangu jël li ñuy wax ay cryptomonnaies maanaam lu ci mel ni bitcoin ethereum ak yeneen ak yeneen alors lan moo nekk objectif seen start-up noonu ak fan ngeen toll exactement ci liggéey boobu noonu. alors euh, bloc comme la mer ben entreprise startup la bu bu yëngu si wallo, jënd ak jaayu jën ak légumes. alors objectif bi euh, ñu def plateforme bo xamné dañ koy basé si blockchain. Mhm. d'accord alors amna ben particularité si li ñuy euh, pour le moment moy mhm. Euh, on est la seule entreprise au Sénégal qui accepte les paiements en bi nga xam ne des nga jënd ay produits moom si mhm. nga mëna a ci ay crypto mhm. genre mën nga fay ak bitcoin mën nga jënd jënd ak bitcoin mën nga jënd légume ak ethereum mën nga jënd leneen yépp produits yi ñuy jaay yépp mhm. ak euh, ay crypto voilà te loolu lenn rek moo ko waral c'est pour juste won nit ñi ko ne euh, crypto-monnaie bi nga xam mom la nit ñi di wax weesu na aspect spéculation donc lenn tamit mën nañ ko ci def mën nañ ci di ci jënd mën nañ di ci échanger mën nañ jënd ay biens ak ay services ak crypto yooyu donc loolu kese moo ko moo ko tax a jóg donc ci euh, liggéey bi ñuy liggéey nag jotaguñu euh, def loolu mais mhm. objectif bi c'est carrément pour def plateforme boo xam ne mhm. c'est décentralisé nga xam ne jëndkat bi ak jaaykat bi dinañ di mën di jokkalante directement mhm. sans pour autant que mu am intermédiaire benn intermédiaire nekk ci digg bi donc loolu mooy objectif bi ñu ngi ciy liggéey nag euh, am yoon bi gudd na parce que y a beaucoup de chemin à faire c'est pas facile technologie mi nit ñi miinaguñ ko donc c'est encore jeune euh, am na yu bëri yoo xam ne maîtriser guñ ko. Mhm. mais au fur et à mesure que tamit euh, ñuy nekk si di ci yëngu. Mhm. donc dinañ maîtriser gën a maîtriser marché bi. gën a maîtriser euh, technologie bi xam li nga xam ne tamit moom lañ ko war a adapté pour que mën a am résultat boo xam ne kat ñëpp dinañ ko mën di euh, utiliser. voilà donc loolu mooy euh, bleu comme la mer en en quelque en quelque sorte. macha allah idée bu extraordinaire la et je pense que euh, képp koo xamante ni mu ngi déglu su intéressé woo ci wàllum blockchain ak wàllum bitcoin war na mën a rejoindre binte ci li nga xamante ni moom lay def parce que je pense que amuñ alal amuñ amuñ amuñ moyens yu bëri amuñ possibilité mais am nañ xalaat am nañ xol bu rafet am nañ teraanga te loolu Sénégal yàlla fekk baax te loolu yëpp war nañ ko mën a boolante pour mën a boolantoo suñ biir boolante suñu xam-xam pour mën a euh, faire révolutionner affaire yu bëri quoi c'est-à-dire bu nga nekk développeur en blockchain tey nekk Sénégal war nga mën a rapproché wu ci Binta ngeen àndandoo liggéey pour que plateforme bi wax nii ak yi muy wax nii yëpp mu mun ko réaliser ñi nga xamante ni aussi seen xaalis lañ yor ñu jàpp ci ba nga xamante ni projet yëpp day mën a euh, dem ci kanam incha allah. Mm, merci beaucoup.

technologie xarala technologie lépp lu xew si wàllum technologie mu nekk euh, innovation mhm. wala mu nekk news suñu premier xarala côté technologie nag mi ngi concerné réseau social bi ñëpp xam mi workshop workshop dina andi euh, yeneen fonctionnalité yu bees bientôt fonctionnalité bi nag mooy Euh, ku am compte WhatsApp di nga mën a connecté wu si plusieurs appareils en même temps di nga mën a connecté wu si appareils yu bëri en même temps si sa mhm. compte WhatsApp en ah, nga en même historique de discussion avec yooyu yëpp mais ah, au total ce sera quatre quatre appareils la a nekk soit mu nekk tablette soit mu nekk. Euh, saama nekk smartphone euh, whatsapp aussi mu ñuy préciser aussi que ne loolu du impacté dara du du du qui dara ci côté sécurité bi quoi dina gën a sécurité bi du de du ci jouer dina gën a am sécurité comme comme comme il l'a toujours fait mhm. sur le deuxième xarala bi mi ngi concerné euh, moteur de recherche bi ñu gën a utiliser euh, mi, Google les utilisateur du ñëw ci compte Google def ay recherche tapé def ay recherche wala mu dem YouTube def ay recherche sur des sujets wala mu utiliser Google Maps léegi après su paree mën sécuriser mën sécuriser mot de passe daa xamante ne sécuriser ba pare keneen du du accéder données du accéder historique de recherche du accéder wu tamit si map bi wala accéder YouTube moom moo ci accéder pour pour pour bañ accéder il faut que def ko mot de passe. nga mhm. xamante day gën a am sécurité. ok macha allah alors lan moo nekk dernier nouveauté bi nga xamante ni am na ci xarala yu bees yi. enfin sunu dernier xibaar bu concerne toujours news côté technologie Google Chrome mi navigateur web bi ñu tàmm di utiliser. ok parfois indi na ay outils yoo outil outils boo xamante ne dina permettre nga mën a bloquer ay sites yoo xamante ne c'est malveillant. Si yoo xamante euh, day day day utiliser say données personnelles des Google sa machine utiliser ces données personnelles mhm. euh, wala tamit mis am information si yow mhm. si yow dans xamante ne biom côté négatif là. dina tamit dina def notification su fekkee da nga installé ay extension yoo xamante ne bokkul ak lu Google lu Chrome lu mhm. Google Chrome approuvé da koy bloqué directement

merci beaucoup Zaina. franchement je pense que euh, actualité aussi amène sur solo trop ci euh, ci podcast bi ah, c'est pourquoi je faire appel à ma woko mom Zaina parce que je ko ci internet bi voilà muy publie tout le temps une nouveauté yu à ak yu et bi propose que ko pour mu ñeu def rubrique bi dafa accepter euh, facilement et je pense que souvent di ngeen ko dégg mom moñi defal ay rubrique actualité ci podcast bi incha à chaque fois bu amé ay nouveautés yu alors euh, Fodé aussi gis nañ ne mu ngi def ay affaires yu bëri ci internet bi comme dama sob ni mu ko waxee jot naa ci ay euh, ay yu mel ni ay euh, Facebound Indigo Predict ak yu demee noonu mu ngi koy partage ak communauté bi en développeur alors Fodé est-ce lan nga ñu mën a wax ci affaires yu travail yooyu ngay def di ko partager ak ak communauté bi maanaam ñu njëkkee par exemple ci Facebound quoi. pardon, pardon, c'est mon téléphone, c'est mon micro qui s'était hein. euh, oui, oui, absolument. Donc, euh, oui, donc, c'est euh, ah, mon projet, en fait, moi, c'est mon projet, juste code, là, c'est open source, là. C'est mon projet, projet, je vais ouvrir et je, je, je, partage avec le monde. donc, Facebook, en fait, c'est un projet que j'avais fait, que DIT, quoi, C'est Sénégal, en fait. Parce que durant le Covid, il y avait un programme de, de machine learning donc je l'ai je rapidement fait là avec DIT et mhm. faut en fait si vous foofu si laa euh, juste un logiciel pour moi a quoi utilisant du machine learning donc euh, pour moi, pour moi en fait pendant pendant longtemps parce que je me je me considère un full full stack developer okay. mais mosuma suis en fait machine learning et heureusement que j'étais au Sénégal l'année passée et j'ai pu participer au programme-là. Mhm. Mais souvent, ce que je fais, moi, je fais beaucoup de, beaucoup de compétitions, de, programmation, voilà, mhm. beaucoup de, euh, beaucoup de, des workshops et tout ça, quoi, parce que je pense que c'est important. Et nous, l'avons en fait améliorer au fil du temps, quoi. Donc, moi, ce que je fais souvent, je crée une affaire pendant une semaine, deux semaines et je partage ça. Donc, je mets ça, je mets ça sur mon GitHub. Après, mhm. j'espère que j'ai les mini qu'on utilisés pour espérer ou bien pour utiliser ça pour faire un benn projet quoi et tout ça. ok donc euh, Face pour reconnaître les visage le quoi c'est-à-dire utiliser machine learning pour reconnaître les visages. alors Indigo voilà. Euh, Indigo c'était euh, en fait c'est un concours aussi. Euh, boo xam je fais un en fait de mon programmation en Go. Mhm. et c'était pour générer une image, le quoi mais à partir de la programmation en fait pour modifier une et tout ça. donc comme on a assez assez de connaissances sur ça. Mhm, mhm. je me suis mis dessus de pendant deux mois et j'ai créé Indigo et Indigo c'était juste pour créer une image beaucoup plus africaine surtout la one et modifier image africaine pour en faire un peu des images euh, like futuristes quoi de genre wala afro wala afro futuriste daal donc c'est des c'est des c'est des pour ça quoi donc euh, parce que man j'aime bien combiner art avec euh, technologie quoi en fait. donc un peu de codage pour xam de générer image wala modifier image wala genre. mais il y a la jege parce que man aussi art daf ma neex ay tableau yu demee non faut ma toll damay. voilà oui c'est très c'est important je je pense c'est important quoi mais en, ce moment en ce moment surtout les surtout en ce moment en ce moment euh, en ce moment euh, mm-hmm. euh, optimisation connexion entre téléphone bi Android ah. blockchain b en fait. blockchain quoi en fait ce moment quoi en fait lolo lolo ça nous permet de bâtir les banques du futur. vous le bas parce que je me dis que, comme, comme je vous disais avant, Bokoleba Afrique, c'est beaucoup plus de 84% en fait, les gens ont des, ont des, ont des, des Android, des quoi, des iPhone. Hein. Donc, moi, je me, en fait, je me, je me, je me concentre sur Android en ce moment parce que mm-hmm. je me dis, que, comme je dis avant, que, que, que Banque, Banque Future, oui, c'est mm-hmm. juste ben Android, là, bon, mm connecté à la blockchain. C'est juste ça. Hein loolu kese la quoi loolu loolu boo ko amee dina la permettre nga participer nga nga mën def commerce ak avec n'importe qui dans le monde ah. soit nga nekk Australie wala Japon wala n'importe où nga nekk Sénégal. mën nga participer avec n'importe n'importe qui quoi donc pour man en ce moment là je me dis que en ce moment fu nekk nii fa ñu toll def recherche. me mhm. xool encore comment est-ce que on peut créer des, technologies pour nous en fait et par nous. parce que boo xoolee baax par exemple voilà application blockchain yi. Mhm. soxla woon moo jógee de l'extérieur en fait waaw sax États-Unis non am nañ xam-xam am nañ xam-xam bi am nañ personnes yi ressources yi quoi. exactement exactement quoi donc bu man en fait donc bu man c'est des de ça qui est important boo xam que on peut faire des meet-up avec mm. développe avec avec développeurs yi. Mm. et suñu paree partager xam-xam boobu noonu partager le code là avec la communauté. su ko mm. defee képp koo xam que ne am xam-xam bi wala tu es curieux wala da nga bëgg da nga bëgg intéressé def lu mel mm-hmm. da nga mën peut-être créer application bancaire yo xam ne ñun on ne sait pas à quoi ça ressemble. parce que Dakar on a des jeunes qui sont on a des jeunes de quinze ans seize ans ils sont très, fort forts. en fait. ils sont extraordinaires quoi. tu vois. et je pense que souvent ce qui se passe, c'est que il faut qu'on ait démocratiser accès à l'information et aussi mhm. démocratiser accès à la bonne information. Alors juste dernier avis, prédicte oui donc président tamit moo tamit. <laughs> Euh, ah xam di nga wax mais man damay wër rek. non <laughs> merci je je vois que je vois que def devoir quoi. Mm-hmm, mm-hmm. euh, donc en fait peut donc peut aussi tamit c'était aussi un concours avec Twilio. Euh, il y avait il y a quelques mois de cela. Mm-hmm. et ce que je voulais en fait moi de faire une prédiction machine learning à partir du SMS tu vois hein. donc je voulais juste créer ben, créer ben ben genre euh, ce qu'on appelle POC mhm. ou bien euh, euh, proof of concept mhm. et li ma tu as un système boo qui qui SMS là et mën mën envoyer tour de mu wax la en fait la mooy chance su euh, tur boobu noonu nekk mu nekk góor tur góor la wala tour ah. jigéen la en fait. ok ok et en fait à la fin je l'ai eu mais c'était surtout ay turu ay turu américain turu. international loolu quoi. non Forkina projet bi sax mais xam naa dinaa gën a de près quoi ça c'est sûr. <laughs> oui en fait c'est en fait c'est un bon projet parce que en fait boobu noonu c'est ma première fois utilisant euh, face API. et face API c'est un bon API système pour pour pour Python quoi. alors ça c'est sûr et, et aussi tamit waaw mais il y' a aussi il y' a beaucoup de y' a beaucoup de choses yoo xam ne dedans yo xamné c'est intéressant parce que comme comme ñun comme ñun comme ñun Afrique dañuy utiliser beaucoup de SMS. Mhm. xëy na dañu aider côté côté santé. wala non fi nga ko mën a utiliser bëri na bëri na trop sax man maa ngi ci brain di xalaat ni mais fi ko a utiliser. voilà voilà alors maa ngi remercier aussi bu baax euh, Daouda Ba euh, bu Galsen Dev parce que moom moo tax ma am information yépp sax aussi euh, am na benn site. Oh, am solo boo xamante ni moom mu ngi ko am mu ngi ci partager uh-huh. bépp projet made in Sénégal. Sénégal la et je pense que loolu am solo trop trop trop après ci description podcast bi dinaa fa bind euh, lien au site bi comme ça ñëpp mën nañ fa dem xool euh, Sénégal gars yi lan développer ak euh, voilà yi ñuy def ak yu pour mun a am base de travail permettre ñu efficace quoi.

code yoo xamante ni mu ngi koy def sur GitHub pour que communauté bi ñëpp mun cee jëriñoo pour mun a euh, sukkandiku ci pour def yeneen projet yu gën a am solo alors loolu moo nekkoon nag seen épisode tey bi ñu ngi leen di jox rendez-vous samedi prochain ci beneen épisode bu bees incha allah allez merci beaucoup ciao